ñu dalal nga président Macky Sall. ak ki nga xam ne rek moo di Idrissa Seck euh, président ñu ngi lay nuyu Sall. Euh, maa ngi lay fay soxna si. di mm-hmm. rafetlu bu baax baax invitation bu am solo bu nga xam ne invité nga ma ko. ci mm-hmm. plateau bi. Mm-hmm. di nuyu Sénégalais yëpp et les Sénégalaises ngi nuyu Omar. di leen nuyu di nuyu aussi soxna si ak soxna si di nuyu Assane Gueye nga xam ni macha allah ni ma ko waxee woon nag moom lañ ko defee muy laaj yu nooy dal personnalité parce que dama ne ko Assane nay nooy Assane aussi tamit nekk journaliste boo xam ne journaliste de qualité la teg lépp si temps macha allah nekk loo xam ni rafetlu naa ko si mhm. laaj yi ni mu ko doon laajee. Ah. maa ngi lay sant di la gërëm di ko sargal sax moom Assane Gueye gone Thiès googu la xam ne dëkk Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar di journaliste boo xam ne nag ko naw à travers li nga xam ne rek moom lay def mu jàkkaarloo nag yow liggéey liggéey bu am solo macha allah euh, président euh, yow nag euh, lu tax nga accepté sax yow mosoo accepté waa Sénégal invité la. du RTS Moussa faa wax wax boo xam ne dina ko su dul noonu Moussa faa jàkkaarloo kenn bi paa nga jël sa initiative bopp invité ko moom Assane Gueye ne ko kaan jàkkaarloo lu tax loolu. <coughs> waaw xam nga Assane laata ñuy di amal invitation bi dafa am médiation journalistique. Mm-hmm. ak Assane parce que proposé woon nañ ma foofu ay journaliste. Mm-hmm. ni Papa Ngagne Ndiaye. so dama wax ak Youssou Youssou di sama wóorlari mhm. ma ne ko seetal ma foofu journaliste bu nooy xam ni dinañ mën a def une émission boo xamante ne bi journaliste bu nooy kon bu la déggee foofu kon Assane Gueye dafa nooy ma soxna ah d'accord boo xam ni dina mën a déglu ànd ak ki relance yi aussi tamit di ñëw relancement yoo xamante ni bi day tegu si temps te aussi bu ma jegee question mu bañ a retourner waat encore une fois ci question bi bon peut-être dans un premier temps ci lañ ma proposé ñetti journaliste <laughs> ñu tegal ma Papa Ngagne euh, ak ki nga xam ni mooy Babacar Fall ak Assane Gueye ma kelemati ko kelemati ko kelemati lang jamaa mu jamaa mu lang jam ka lay mu taj mu dal ci Papa Ngagne <laughs> tax nga bañ Papa Ngagne. ma éliminé ko. ñu defaat kilomètre kilomètre lañ. Mhm. jamaanu jamaanu lañ. Mhm. jam ko la mu taj mu dal si baaxul. ma daa dee tànn ki nga xam ni mooy. Assane Gueye Assane Gueye macha allah bi mu ñëwee. toogaay bi ñu waxtaan man ak Assane mu fàttali ma. jaar-jaar yi ak waxtaan bi nga xam ne wax ma xam ne kii vraiment c'est un journaliste de qualité mm-hmm. et puis on a démarré l'émission ma mm-hmm. ko Assane émission yi parce que léeg-léeg mu laaj ma ne ko ëpp oh, bii taamu na ma kon président ñu baare ah avant ngeen dem da ngeen a briefing bu la waxee dara nga ne ko mm-hmm. lii bëgguma ko non Assane lii moom waaw kon ñu bon vraiment mhm. mu laaj ñu tontu ñu laaj ñu tontu macha allah mu nekk émission boo xam ni sénégalais yëpp apprécier nañ ko. Mhm, mhm, parce que boo seetee même sax ci bi may wax kii bi ma naan comme ni ko xale yi di waxee ku kii. moom moo njëkk a wax ni ku gedd sa gis nga ni ko Assane waxee noonu. Ah. après ma daal di ko wax ne ko bu la yàqee may la xooñ. bu la fàtte may la mu ne ma ñeex. ñu eh, daal di loolu lépp eggoo ci nag moom waaye yegguñu ci sunu xel. loolu di am solo. loo xam ni Euh, ma sant naa Youssou Ndour encore une fois. parce que que mu indi la Assane Gueye. mu indi Assane Gueye. di wax ni léegi dinaa def weer wu jot. ma def benn asan Assane Gueye benn émission. Mhm. boo xamante ne bi aussi euh, dañ koy diffuser sur toutes les télévision wala très bien. nañ jël nañ la jox Moustapha. boo waat kenn la tànnul. Moustapha nañ dem nañ nañ dem ci Sonko ah, ah d'accord léegi ñu dégg la nga wax ci li nga xam ne rek moom moo di dialogue bi da nga bëgg loolu da nga sonn xanaa. waaw bi waxtaan naa ci ak Assane aussi. Mm-hmm. ci dialogue bi Assane Gueye aussi tamit nekk ku compréhensif. nekk koo xam ni ku ànd ak dal la. Mm-hmm. am vision journalistique. Mm-hmm. parce que Assane il faut mu dem si di joxe ay cours. il faut que mu ma dinaa wax Assane mu créer ay élèves yoo xam ni. dañuy jël si yeneen télé yi comme ñu ci mel ni ay walfu ñu gën leen a former formation Assane Gueye parce que yéen ñi ñëpp war ngeen dem jàng war nañu boole Assane war a dem Assane créer waat une autre kii de vision de journalistique euh, parce que Assane c'est quelque chose c'est un monument Assane monument la bi lim ci boo xoolee Covid bi euh, saa yu xëyee ni mu doon jàllalee communication bi ñu bari bu ñu Covid c'est Assane mm-hmm, mm-hmm. donc li mu wanewaat day wane ni Assane nit la koo xam ni euh, ku jar a jàppale la. Uh-huh. donc may moo tax loolu sax bokk na si li tax ma ne il faut mu ubbi benn école bu mag a mag euh, boo xam ni loo ma laaj. <laughs> remember xam nga li ma la laaj xam nga li nga def ak Assane yow il faut nga. muus nag dama la bës. nga ñëw rek yow voilà yow léegi. on va prendre Assane kay. waaw d'accord waaw léegi il faut nga nangu Assane nangu laaj bi ni nga ci kontaan. voilà bon est-ce que parce que laataan ñu ko dana ma monsieur président est que je peux te poser question si dialogue bi ma ne ko allez-y après Assane a dit. Ah, ci briefing bi euh, non même ci émission bi sax daf may envoyé texto ne ma ndax ma laaj leen damay. lire si astafur ay président. <laughs> moom vocal moom. vocal noo koy liiree ci yooyu yéen a ngi en direct. loolu dañuy dem montage tey dem montage ah, d'accord. moo tax xamal loo xam ne ko bëggoon def nii euh, Modou Diouf euh, <laughs> euh, loolu nan koy def bu ko defee El Hadj Modou dina ko defal ma yow. bu nee monté ko teg loolu c' quelque chose de très important. en tout cas mooy Assane Assane nit ku baax la. vraiment nit la koo xam ni. Mm-hmm. faire avec une émission ak Assane Gueye. c' est comme faire une émission de CNN. et de aussi France 24. parce que Assane am naa ci écho

tudd Sonko. waaw du ma ko tudd parce que booy boobu duma ko defal buzz man bu ma ko tuddee ma am buzz. mun mhm. naa ko tudd ma am buzz. moo tax Assane moom foofu moom mooy tudd waa ji mooy gaañ boobu. Ousmane Sonko mais gaañ boobu man du ma ko tudd. Ousmane booy la boo xamante ne bi dafa commencé di ngand ngand lu dafa ne moom moo yor réew tudd turam. je ne prononce son nom. Euh, euh, tamit nga waxaat ni que nga waxaat ni nga waxaat ni que euh, bu fekkee wax nga kenn pour ñu amnistier leen bu ñu bañee. say ñoom. mais sama yoon newu ci loolu moo tax gis nga Assane day déglu ne la jërëjëf président ñu jàll ci deuxième question loolu c'est très important pour pour nga doxalee noonu Assane formidable macha allah lii mooy wane ni télé Youssou Ndour bi fi mu toll nii. niveau bi ay professionnels ñoo fa ne. niveau parce que niveau bi dafa yéeg. <laughs> mais ay télé yi. Walfadjri ay caaxaan télé yoo xamante ne bii. mais mais mais nangul wax noonu. di poser ah, ay questions yoo mais président waaw d'accord mais dañu dañu bari coow. léegi président euh, man damaa bëggoon ñun ñaar ñu am benn ñun ñaar kese. ñu daal ñu liggéey ko ma ak yow. ma laaj la ay questions yoo xam yow ni nga ko bëggee. noonu laa koy defee parce que yow njiitu réew mi. macha allah macha allah loolu lu baax la. waaw jërëjëf mais il faut nga ànd ak Assane. ma ànd ak Assane mu formé la. parce ndeysaan ree ji sax léeg-léeg mu jege ne la eh, président ndeysaan noo gisee lii nga dogul nii nii la gisee mu ne eh, eh, merci président tëm ci liggéey ndeysaan Assane dimbali na Assane <laughs> ñu ngi koy nuyu de parce que Assane ay Kolos Kolos ay ñu ngi koy nuyu Assane alaaji Assane Gueye moomu ne macha allah ñu ngi koy nuyu liggéeyam dafa rafet man damay rafetlu ku mel ni Assane il faut mu ubbee école journaliste boo xamante ni Assane mooy nekk le professeur. ndeysaan nit ku baax la nag sagesse bi ne si moom. ak dal gi ne si moom mu def ko ci xale journaliste yi xale yi dañuy ñëw rek tàng xol. di laaj ndax président yow. lii xam de président boole woon ak Omar Gueye. Omar bu la tàggatoo non non ñooñu ñooñu ces journalistes de Walfadjri dañoo déggagul directeur moo tax. ces journalistes de na fi yàgg. ñu ngi koy ñaanal moom Assane yàlla na yàgg a def ak man ay interview yii nga xam de sax xool ko ni mu sañsee Assane Gueye jàmbaar la liggéeyam am na solo mhm. di ko nuyu di nuy waa cees di nuyu njabootam yépp gën na ca Thiès vraiment di ko wax ne ko ñu ngi rafetlu liggéeyam Youssou Ndour lii mu def nii mhm. c'est très important jël ku mel ni Assane mu mhm. sage lii sax incha allah. Mhm. Eh, année yii di ñëw Youssou Ndour du fay impôt lépp ngir bégal ko ko incha allah ci kàttu yàlla dama koy jàppale parce que Assane. Mhm. mooy Assane lépp ndax Assane Gueye. Assane Gueye yàlla na fi yàgg te wér. amiin yaa mii daal. macha allah jërëjëf mën naa laaj te yi day xóot. sa laaj bu xóot bi ma laaj. président président yow. sa liggéey ni mu rafetee nii lu tax mu rafetee nii. loolu laaj la ndeysaan waa bu yàgg. Assane Gueye daal yàlla na ko. kon ni nga koy ñaanal moom mi nga xam ne rek moom moo di Assane Gueye. waaw <laughs> ah, macha allah <laughs> liggéeyam bu rafet boobu président Sall kontaan yow nee na wax dëgg nee na ci yaru geeg yëpp ñu seetlu tamit loolu tamit aussi heure boo di def journal rek ñu koy bàyyi xel waaw.